nettali naa ko ay yoon yoon koo xam ni salaatul faati la jàppoon di ko liggéey bi su jot vingt-deux mille def na ko ay at te salaatul faati mooy salaatu gi nga xam ne sëñ Tuubaa defu ko waaye yim fi fekk te defu li ëpp yim ci utiliser <coughs> li ci jël <coughs> gis naa lu mat lu ëpp téeméeri xasida yoo xam ni salaatul faati mi ci yii ci léeg-léeg yi ci tarimaan ji njëkk ja yi ci yu mujj yi léeg-léegi sax bu njëkk ga ak mujj gi mu ne ci sëñ bi fekke na fi ay salaatu am na yum ci jëfandikoo waaye salaatu faate moom mooy bi ëpp ci yum ci jëfandikoo te mi ngi ci biir wirdul maaxuus te boo demee ci borom na eh, aw iqnaul adim bi xabaaya awraadul xadim ak Cheikh Mouhamadou Dagana nee na yonante bi sallallahu alayhi wa bi muy jox sëñ Tuubaa wirdul maaxuus ci la salaatu faate ji àndaale te nee na suñ borom moo ko jox kooku nag di ko liggéey vingt-deux mille def na ko ab diir nee na ay jëmmi jamono mu feebar bañ di ko wooye li doktoor te fal xaq wal xaq aqulu nee na noor la mu jekki-jekki dégg ak dënnu ci noor bi loolu jaaxal ko nee na mu mel ne dënd gi day gën a jege si mel ne dënd bi day gën a jege si ba mel ne mujj dënd gi day daanu sax ci néeg bi mu nekk nee na mu jékki-jékki am lu ne cëpp ci kanamam sol yër yu weex tàll nee na mu xalaat ci xelam kan la war a doon kii taxaw sama kanam ni mu ne man la malakul mawti nee na nag foofa tiit na tiitaay nga boo xam ne nii moom yéeme na ndax lam jàppoon ci xolam mooy dafay faatu ndax lim jàng ci téere yi yëg ko yi ne koy faatu malakul mawti day teew moom mu dafay génn àddina nee na mu xalaat loolu ci xolom rek mu ne ko ñëwuma ngir jël sa sag ruu damaa ñëw di la siyaar si ngir baril gi ngay baril li ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fes soo gisee ñuy nettali yii mooy ñu xam ne am na ñuy dund ci kaw suuf ñu ngi jariñu ci salaatu ala nabi Sénégal nag moo naqaree waxee ba ñu bare bare ñu di ko nëbb waaye nag euh, léeg-léegi am na ci ñu war a mën a génn nit ñi jariñoo ci nit ñi soññoo ci nit ñi xam ne lam daan jariñ ba tey mi ngi koy jariñ kon lu ci waay amul ci yow la waaye li fi newoon moom mi ngi fi rawatina salaatu xalid bi yi nga xam ni mu ngi moom la sëñ Tuubaa def te xasida koo gis sëñ bi julli na ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom nee na ay aadaam moo kawe jaamu yàlla ak sang su baax si kon ak jaamu yàlla am fu mu war a tollu yooyu nag ku ci jël da cee nab nabi ah mën nga àgg fu ne kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi noonu fi may jeexee daal mooy soññ sama bopp di soññee ñu am pas-pas am pëstéef am sellal gis nga kenn nit benn ñaari nit mën nañoo dëkk kii jël ak salaat wala jël ak xasee di ko jàng bisu jot ñaar fukki yoon fanweeri yoon kii di ko jàng benn yoon man ko ci sut ko ci raw ko ci ca pëstéef ba la ca yéene ja la ca sellaay ba la mag ñi ñoo leen ëpp lu ñu doon jàng xasiida te ñooñu gën a jariñu ci xasiida yi dañoo ëppoon pëseef gën ñoo sell ay jëf gën ñoo sell ay yéene kon euh, kuy raxas bool ba noppi di tilimaat sa raxas moo nar a yàgg waaye ku set rek ku sa ndab set ñu tibbal la kon sa ndab lu set nag mooy sellal sa pas-pas sellal sa yéene sellal sa pëseef kon ñoo ngi ñaan ku fi teew suñu